ñëpp ñi nga xamante ni ñoo ma gunge ñëw fii. damay ànd ak ñëpp ñoo xam ne ñoo ma gunge ñëw fii. ma feesal sama mbégte. ma feesal sama mbégte. ndax tey nee na nit buñ nee dafa baax. nee ndax bu nee nit dafa baax. ñu ne ndax mbokk yaa ko wax. ndax ñu ni ndax mbokk yaa ko wax. boo ñëwee ci dëkk. boo ñëwee ci dëkk. ñuy wax lu baax. ñuy wax lu baax. di wax lu sell. di wax lu sell. amul sikk ne. amul sikk ni. ay nit yu baax rek nga ay nit yu baax rek ka fa ne. maa ngi nuyu ñëpp ñi fi teew. maa ngi nuyu ñi fi teew ñëpp. xëy na nag mënoon naa présenté wu. nee xañ na mënoon naa présenté wu. waaye yàlla suñu borom buur bu xarañ waaye yàlla suñu borom buur bu xarañ la. dafa bind téere bu sell. dafa bind téere bu sell muy alxuraanul karim. man nag alxuraan bu ma koy firi. man nag alxuraan bu ma koy firi. mooy mbindee fi. mooy mbindee fi. moo tax yàlla ne. moo tax yàlla ni. almaalu wal banuuna. almaalu wal bannuuna. mu ne ziinatal xayaata dunya mu ne ziinatal xayaata dunya. soo taxawee foofu rek. ne soo taxawee foofu rek. mooy li ngay xool ci sa bët. mooy li ngay xool ci sa bët rek. mu taaru trop mu taaru trop. mooy li ngay ñam ci sa làmmiñ. mooy li ngay ñam sa làmmiñ mu neex lool. wala sa jëmm man wala sa jëmm man ko dékku. waaye lim ci teg mu ne. waaye lim ci teg mu ni wal baaqiyaatu saalihaatu. wal baaqiyaatu saalihaatu. mën naa yem foofu. mën naa yem foofu. sëñ Touba moom dafa ñëw ci kun kaatiman. sëñ Touba dafa ñëw ci xasida gu ñu wax kun man ba mu ne kun. ba mu ne kun. man de ci li ma ci dégg. mais man ci li ma ci dégg. mooy nanga far sa jëm. na nga far sa jëm. maanaam na nga tàggat sa bopp. na nga tàggat sa bopp. ba lépp li nekk ci àdduna. ba lépp li nekk ci àdduna. ban la jaral dara. ban laa jaral dara. man loolu laa dégg ci kul. man loolu laa dégg firi moo tax bu ma fi ñëwee ñu bàkkee ma yar ak teggin. kon bu ma fi ñëwee ñu bàkkee ma yar ak teggin. olof nee na yax bu demee ci waar wàcc. olof yax olof nee yax bu demee ci waar wàcc. réew mu sell. réew mu sell. mii di senegal bii di senegal bii di Sénégal. lenn lu dul. bàkkee wuñu lenn lu dul lu baax. xam-xam xam-xam. yar ak teggin yar ak teggin. def lu baax def lu baax. jaamu yàlla jaamu yàlla. kon su ma xëyee ñëw seet si ko moom. kon su ma xëyee ñëw fekk sëñ Xaadim Buso seet si ko. dama ànd ak ki nga xamante ne rek. dama ànd ak ki ma àndal rek. ay jikkoom. ay jikkoom. neex na ma. neex na ma ay jikkoom doy na ma. jikkoom doy na ma. sama nit moo ma ko présenté. ne sama nit moo ma présenté sëñ Xaadim Buso. mais dama toog di xool ay émissions yu bëri yu muy def. damaa toog di xool ci internet ba ay émissions yu bëri am na koo xam ne jàng na lool. am na koo xam ne jàng na lool. am na koo xam ne dox na lool. am na koo xam ne dox na lool. am na koo xam ne yàgg na fi lool. am na koo xam ne yàgg na fi lool. waaye loolu ba tey ak am xam-xam bokkul. waaye am xam-xam bokkul. kii dafa am xam kii am na xam-xam. kii am xam mbindeef la boo xam ne. ku am xam-xam mbindeef la boo xam ne. suñu borom mooy àddu ci moom. suñu borom mooy àddu ci moom. yàlla defal na ko. yàlla defal na ko. xëy na man damay politique. xaj na man damay politique. waaye dama créer parti boo xamante ne. waaye damaa créer parti boo xam ni. doomu aadama laa ko tuddee. doomu aadama laa ko tuddee. muy nit. muy nit. te ci biir li nga xamante ni moom laa ko sosee. te li ci biir loo xam ni moom laa ko sosee. am na baat bu ma naan jot nit. am na bot baat bu ma naan jot nit. mooy asamaanu jot yàlla. mooy asamaanu jot yàlla. kon ku fi bàyyi doomu aadama. kon ku fi bàyyi doomu aadama. di defi leneen. di defi leneen. perte nga. perte nga. kuy wër suñu borom. kuy wër suñu borom. wër ko ci doomu aadama. wër ko ci doomu aadama yi. moo tax bu ñu nee moom. bu ñu nee moom. lépp lu mu am. lépp lu mu am. jox na ko mbindeefi. bokk na ko mbindeefi jox leen ko. kon. li nga xam ne suñu borom tënk na ko. li nga xam ne suñu borom tënk na ko. def ko ci doomu aadama. def ko ci doomu aadama. ba tax mu ne. ba tax mu ne. laqad xalaqnaal insaana. laqad xalaqnaal insaana. fii ahsani taqwiim. fii ahsani taqwiim. wàcc na ci moom. loolu wàcc na ci moom. loolu tax ma ne man damay politique. lool moo tax man damay politique. waaye ku ma dajal. waaye ku ma dajal. dama naan ko na nga dindi léppi àdduna sama. diggante dama naan ko léppi àdduna na ko dindi sama diggante. nga teg jëmmi doomu aadama. nga teg jëmmi doomu aadama. loolu laa ko jàppee. nee loolu ko jàppee. yàlla ku nekk ci. ci ku nekk ci ñun. li am solo. li am solo. mooy dajeeg nit yu baax. mooy dajeeg nit yu baax. xam nit baax. xam nit yu baax. jàng ci ñoom. ñoom. jariñu ci ñoom jariñu ci ñoom. defaru ci ñoom defaru ci ñoom. Mm. kontaan naa lool. kontaan naa lool. kàddu yi rek laa si doon kàddu yi rek laa xam naa kàddu yi sax naa bañ a bari. sëñ Xaarim ne xam naa kaddu yi man naa bañ a bari. ndax sama mbokk yu baax yi fi wax. ndax sama mbokk yu baax yi fi wax. ne doyoon na sëkk. ne li ngeen fi wax yéen nii. ak sëñ Abdou Baaxe mii nga xam ni maag sëñ Abdou Baaxe benn lañ comme ni ma ko waxee léegi rek waxtu wu nekk rek la ñuy wax waxtu wu nekk la ñuy gisee sëñ Mourtala mii ni mu ko waxee bari na loo xam sama biir njaboot moo koy lijjanti école bee may tabax muy daaray alxuraan ak école lépp ci loxoom laa ko teg ne man xaw ma ci dara nee ni ma ko waxee rek noonu la demee. ne sëñ Mamoun ñang mi doon wax léegi xam nañ sama diggante moom ñëpp xam nañ ko moom xam na ñëpp xam nañu ne ak mbaax rek moo ko tax a jóge Dakar dem ba léegi ànd ak man bis bi ne bi mu xam ngeen ni fii la dal ci kër gi comme ni mu ko waxee rek sëñ Moustapha Diakhaté mii doon wax léegi ne li mu fi wax nii ak mbaaxam rek la ko waxee wallaay fàtte woon naa ko <laughs> ne sañ sëñ Moustapha Diakhaté kenn amul fayam ndax lim nu defal ci alxuraan dafa doy sëkk. moom mii amoon na fi natt boo xam dañ koo tooñ. moom mii amoon na fi natt boo xam ne coow la defe naa kuy murit dégg nga ko. ñu toj ko ci kaso. mu bindal sëñ tubaab kaamil. mu bindal sëñ kaamil foofa. bi mu génnee la indaale kaamil. te laxoon ñu tëj ko rek. mooy défendre sëñ tubaab. ne ko man sant naa yàlla. loolu loolu la amee ci ñun yëpp. nee sëñ Sylla Baye Fall mi doon wax. moo nu mag di sunu baay. te ëppale wuñ ko cër ci sëñ Touba. mu dagg yëpp dem dem ba léegi mu ànd ak man bis bi. nee sàng la ko sëñ Moussa Baar di ko sant. ni ko gis nii ci xaw yi doo xam. waaye ku dem ca péncam ma. ba xam la mu fa def. nga xam ni la sëñ Touba def fépp la ko defal. nee ñu ngi leen sant yéen ñëpp. loolu maanaam loolu ay échantillon yu ma génn ne loolu ay échantillon yu ma génn rek la. waaye mën naa ko wax kenn ku ne ci mbooloo mi fi teew yéen ñëpp ne capitaine nag yàlla moo nu boole ndax dama koo yàgg wër mu yàgg maa wër ba yàlla def ñu daje dama daan wax naan capitaine moom xanaa arabistan la waaye alxuraan jël ndaxte saa yu saa yu ma ko dégg. ndax saa yu ma ko mësaa dégg. li muy wax da koy dégg mu dugg sa xol. li muy wax da koy dégg mu dugg sa xol. nga xam ne nit ko am diine ngi. xam nit ko am diine pas-pasa ngi. nit ko am gëm-gëm ngi. ngi. waaye nit ko am fit. ak xam-xam yooyu nag bu àndee nekk ci nit. yooyu su àndee nekk ci nit. mu dem dana yomb. kon maa ngi koy sant bu baax. kon maa ngi bu baax. ci teewaayam bi di leen ko dénk yéen di leen ko dénk ndax yéen ñëpp samay nit ngeen. ndax yéen a ngi wax lu baax xooloon waaye bu ngeen xooloon sama jëmm rek du ngeen fi teew ndax man ngeen ni kii bi nekku fi woon xewle woon nañ ba tay ñëwut ndax féetewul woon Sénégal waaye seenu mbaax moo leen tax a ñëw kon sant naa leen ci baax a baax di leen xamal ni leen ne capitaine nit ku baax a ngi nit ku yiw a ngi nit ku xam fu jëm a ngi te yooyu ma lim ci moom ab barigo ci mbartal kon nag ku mat puus rek mu dem ne maa ngi ngi koy bu baax. rawatina nag rawatina nag. yéen ñi nga xam te ni. yéen ñi nga xam ni. seen seen seen féete. seen féete. ma nga ca course ga. ma nga ca course ga. di lasraar. day di lasraar. muy sëñ bi baaxee loo ñu baax ñoom ñi. di sëtu sëñ Modou Lo Issa. ne ñëpp xam ko. sëñ Modou Lo Issa ak sëñ Massamba. ñu bokk benn ndey soxna Issa. ne kon bagage yi mu yor. ay bagage yi mag la yor. ne maa ngi leen koy dénk sëñ bi du baaxee. ne sëñ Moussa dégg nga ko. maa ngi la koy dénk ci alxuraan ji yow bagaat sëñ Tuubaa nga yor moo ma njëkk solal mbubbum sëñ Tuubaa moo ma njëkk solal mbubbum sëñ Tuubaa moom sëñ Musaa Jaxate bàyyee ma ni ko téyel rek yow ni ko téyel ba waxtu la neex ma téye ko ba waxtu moo neex mu woo ma soññ ma ma doog ko koo delloo <laughs> <laughs> ne mbubbum sëñ Tuubaa kaalaam xam nga sëñ mbubb yu bari la daan sol. da daan summi rek di ko joxe. moo tax sëñ Moulay Boussa. keroog bi keroog bi sëriñ Tuubaa waxee ni képp ku fi xam-xam andi. amatuma jotug jàngale. bi ko yonent wax ni ko rabbi asxaabaka bil himma wala turabbihim bi darsi faqat booba sëñ Moulay. nee booba sëñ Moulay. la woo la woo. ni ko damaa bëgg nga jàngale. ni ko damaa bëgg nga jàngale. sëñ Malick Ndiaye yéene. sëñ Malick yéene. ni sëñ bi nee ku fi jàng andi. nee na nga dem ci sëñ Moulay bu sax. booba sëñ Balla bu sax laa bëggoon wax. moom ci boppam. daa ñëw ci sëñ bi. sëñ bi ni ko Balla foo toll. mu ne ko xanaa de man de wàcc na pare naa ci alxuraan. ma ne ko wàcc naa ci alxuraan ji. mu ne ko loo ci xam. xam nga sëñ Bal daa mun ful mu ne ko laaj ma lu la neex. sëñ bi ree ba ba feeñ. daal di summi menn mbubb. jox ko ko ni ko dee ko barkeeloo. kon ñun lu am rek. sëñ Tuubaa lu waa Mbusoo bi am rek sëñ Tuubaa ne sëñ Mbàkke képp. mooy kenn koo xam ne. sëñ bi daana ko woo ko. yaa ibnu amati waxaalati waxaali yow sama doomu bàjjan yow sama doomu nijaay ne loolu la ko sëriñ bi de wax ne bi fi sëñ bi jógee sëñ Mbàkke Buso moo ko taxaw ni ko sëñ Maamun waxe moo ko jullee moo ko miraas moo waar waa kër ga barab bañ koy denc moom dong nga ko xamoon ba mu ñëwee dox fukki jéego ñaar. ba mu ñëwee dox fukki jéego ñaar. mu toll juróom benn mètre yu tegaw. mu teg toll juróom benn mètre yu tegaw. daal ni fii la ma waxoon. bañ gisee gis ëkk ga. bañ gisee gis ëkk ga. sëñ ma ndumbe xabaan daa daanub jël. daa daanub jël. daa ni ëkk gi de. maa ko suuloon fii. te ko nettalee Cheikh Ibra. te bañ ko nettalee Cheikh Ibra. goroon. dani maa ko goroon. bañ ba suulee. ba ko suul ko te dem. bu bu bu ba kenn xam. ko. te wax ko woon lu mu doonoon. te wax ko woon lu mu doonoon. te la woon suñu mbàkke. xam nga wàllu yu. xam nga wàllu yu. am na ci ñoo xam ni. li yonente am dañ ko am. li yonente am dañ koo am. ne bala leen malaaka jël da leen di tàggu. sëñ Touba sëñ Touba. sëñ Mbàkke la waxoon. bis bi mu fi bàyyi ko bis bi mu fi bàyyi ko. waxtu bi bàyyi ko. ak minute ya noonu la ko waxee woon. moo tax bi sëñ Abbas bu sa ñëwee. daa fekk sëñ Mbàkke jàpp ba coppandal. bi sëñ Abbas ñëwee xanaa ku baax ngeen indi. bi sëñ Abbas ko rek dañu ko xanaa ku baax ki ngeen andi. mu ne ko waaw waaw. mu moom la ni ma waxoon jàpp naa dana gën teel nii. mu ne ni ma waxoon jàpp teel nii bu fekkee waxtu wi la ko def. ne bu fekkee waxtu wi la ko def. bu ko a teel. ko gëstu woon dana gën a teel. te xam ngeen ne Cheikh Moussa Al fekk sëñ ba. xamun woon waxtu la. kon ñu bari xamuñu woon waxtu. ne sëñ Mbàkke la ko xamaloon. ne sëñ Moussa day wax ni. li ma yéem mooy sëñ Mbàkke. li kattan gi ma am. ak fit fulla ji. ba suñ borom roof ko doole. ba suñ borom roof ko a sëñ Tuubaa jullee ko. di ko jullee. bañ demee ba ñuy defar Omar it. ba waxtu julli jot. ba waxtu jot. daani kii kat nee na moom lu ñuy def ba julli jot nañ ko kii la ma waxoon. lu ngeen di defati ba julli jot. nee na ngeen ko bàyyi. ñu pare ñu pare. ay mag kilifa yu mag. ay kilifa yu mag. ñëw ci sëñ Mbacke ñëw ci sëñ Mbacke ni ko ku doy sëñ Touba ni ko ku doy sëñ Touba daal doy nanu yow ci yow ne sëñ ma numbee ko jëkk a wax junni junni jox ko sëñ Mbacke téye ba bis ba yëf ya jàll ba yëf bañ toog weer bañ toog weer mu mu mu dem dajeeg ñoom mu dem dajeeg ñoom mag ñooñu ñëpp mag ñooñu ñëpp ànd ak ñoom ànd ak ñoom ni leen na leen dem ca sëñ Modou Moustapha mu woolu sëñ Modou Moustapha ca jumaa ja bañ ñëw mun leen Modou Moustapha mi am na ñeent fukki at. am na ñeent fukki at. baayam nee na ko woon boo ko amee kenn dootu la yilifati. baayam nee na ko woon boo amee ñeent fukki at Modou Moustapha kenn dootu la yilifati tey dañ nag réer. te dañ nag réer. te ñi bokkoon ak sëñ Tuubaa Baay. ñi bokkoon ak sëñ Tuubaa Baay. doon nañ seen i baay. doon nañ seen ñun ñi nga xam ne ay mbokk deretam ñun ñi nga xam ne mbokk deretam la. doon nañ seen i baay. doon nañ seen i baay. taalibe yi jébbalu ci moom. doon nañ seen i kon mënta doon kenn ku dul sëñ Mourou Moustapha loolu sëñ Mbàkke bu so kon moo taxawu sëñ Tuubaa. kon sëñ Mbàkke moo taxawu sëñ Tuubaa. moo ko jullee moo ko miraas moo waar waa kër ga waaye nag moo samp xilaafa gi woo sëñ Mourou Moustapha ne na ñëpp ànd ak moom. moo ajal sëñ Tuubaa moo ajali sëñ Tuubaa ànd ak sëñ Fallu. nee keroog bi tiimee sëñ bi. nee keroog daa tuuru waaye demuk sëñ bi tuuru ko. ndax nee li ko tuur moon dañu ànd moon danañ ànd màkk. te mi ngi tëdd. te mi ngi nii dañ. te jii laa gën a gëm li ma moo tax keroog bëgg suñ fàllu wooyee. moo tax keroog bëgg suñ fàllu wooyee. ni ko man ak yow ak maam Cheikh Anta. ak sëñ Tako. ak sëñ Moulay. ak sëñ Ibrahima Dia. sëñ Ibrahima Dia. ak sëñ Moyoro Fall. ne ba ñu fukk ak benn rek dañuy ajali sëñ bi. booba sëñ Mbàkke bu sa booba rangooñam daa tuur. sëñ Fallou ni ko. sëñ Fallou ni ko. nijaay Mbàkke. nijaay Mbàkke. maa la ko waxoon. maa ko waxoon. maa ko defaat. nee jarut jooy. moo tax suñ suñ fàllu. moo tax sañ fàllu. kenn du moom moom it. kenn du moom moom ñëw na fii ci ci pencum Gédé mi. ñëw na fii ci pencum Gédé moom sañ fàllu. am lu mu jàmbat sëñ Mbàkke. yoo xam ne mbiri biir la. sëñ Mbàkke ni ko. sëñ Mbàkke ni ko. fàllu xanaa da ngaa fàtte ni. fàllu xanaa da ngaa fàtte des na tuuti muy yow. na tuuti muy yow. noonu la ko waxee. noonu la ko sëñ Bàkke bu sa waxee. bis ba del si wut. sëñ Fallou di xalifa di sëñ Touba. moo tax mu daan wax naan. nee moo tax mu daa wax naan. man maay sëñ Touba. man maay sëñ Touba. bu ngeen ma noppee gis. ma noppee gis. noppee gis sëñ Touba. noppee gis sëñ Touba. di gis ay doomam. kon capitaine. kon capitaine. fii nga ñëw. fii nga ñëw. barabu ñaanukaay la. barabu ñaanukaay la. barabu nangu waay ñaan. barabu nangu ñaanukaay la. nee sëñ Jili Lappe day nettali. mu ne sëñ Abdou Xaadir da koo mos a woo waxal safóor bi mu ñëw. ni ko waxal safóor bi mu ñëw. dañuy dem tey ci barab boo xam ne. dañuy dem ci boo xam ni. ku fa yóbbu aajo. ku fa yóbbu aajo. bu fa jiwut. bu fa jiwut ci yow la. nee na ma xaw ma fu ñu jëm. nee xaw ma fu ñu jëm. nee mu ni chauffeur bi jubalil Gédé. ñu dem ca barabu sëñ Mbàkke Buso. ñaan fa. sëñ Jili lam fa ñaan lépp. fa ñaan la fajoo. kon ñëw nga barabu ñaanukaay. loo fi indi ci aajo. yàlla na ko suñu borom saafara. yoon wi nga soobu. mu yoonu politique. jëm ci réew mi. jëm ci réew mi. yàlla na la ci yàlla defal li nga bëgg lépp. te mu dëppoo bëggu yàlla. ak bëggu yonent bi. ak bëgg ki ñu amul loolu moom. muy Serigne Touba. kon sant nañ. sant mënta paase. sant. ndax boo xewlee. sa mbokk yëpp ñëw. say xarit ñëw. say àndandoo ñëw. kon amoo loo mën a tey wax. nit nit rek ndax nit nit rek la. te ku ne sa bopp nga te ku ne bopp nga ñoo ngi lay sant. di la sant yaak sa délégation. ne ak ñi fi jël kàddu yëpp rek. ne ñoo ngi lay sant sama mbokkum géwél mi ne sëñ bi ne ñu ngi lay sant bu baax. ne soxna Adja ak ñi nga àndal ñëpp. ne lii ngeen def lu rëy la ci man. waaw kon suñ maamun. sëñ maamun. a ngi nii. teg naa ko seen loxo. yow ak sëñ Moustapha. ak sëñ Abdou Baaxe. ak ñun ñi nag ñun communicateurs yi da ngeen. ne xorom lanu. engagé wu nañ. ah waaw ne yéen communicateur du ngeen bokkul du am xorom. ndokk ñun ci yow rek lan sëñ bi. ñun ci yow rek sa ndigal rek la ñu déglu. waaw jërëjëf.